rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu àdduna waaye du nuyu Sénégal waaye du nuyu le PDG la maréchal El Hadj Thierno Moulay Sow king of the king king all the king le roi médecine traditionnelle du monde tubaarkàll bu leen fàtte ne ma nga foofee ca France di wéyal li nga xamante ne mooy tournée européen bi nga xamante ne tubaarkàll ma ngi ko tàmbali woon le 20 ba le passé tubaarkàll ba tey ma nga ca France fi mu ne nii actuellement dëbb na France ba mu nooy nepp ngi koy nuyu bu baax. di nuyu madame Sawla ren waaye di nuyu Rahman ak Rahim waaye di nuyu ki nga xam ne mooy soxla Umu waaye di nuyu tamit ajaratu Mariama Kamara tubaar kàlla di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér mu mel ne tey nag di xew-xew bu rëy di appel appel bi nag at mu ne bu leen fàtte ne alaaj Thierno Mouleye Sow tubaarkàll day fabu ànd ak mule muley waaye ànd ak mbooleem jëwriñ yi kàll wutali fële ca kër doomu ndeyam xaritam Ibou Séni cawlaay ñu koy nuyu bu baax a baax a baax borom xam-xam bu sell boobu tubaar tubaarkàll ñu def ay añ nag fii ci kër gi sëriñ bi génne koppar yu takku daal di koy def añ yu bakkane tubaarkàll woo mule mule yëpp tubaarkàll ñu ñëw fii ci kër gi nag fas yéene fee waaje jëm fële nga xamante ne nag mooy kër Ibou Seni cawlaay laay fële ca yoof tubaarkàlla ngeen xam ne tey jii uma islamique bi yëpp tubaarkàlla ña nga dajaloo foofu waaye dañuy daal di ñëw rek daal di dugg ci waañ wi fekk fi madame Babou tubaarkàlla ak ki nga xam ne mooy Marème Faye Sall tubaarkàlla ànd ak euh, Ramatoulaye tubaar tubaarkàlla ci waañ wi ak mule mule yëpp defe naa ne Mouhamadou Youssouf mule mi ngi fi waaye ab Ablaye Diawo ngi fi waaye tubaarkàlla maabo di kenn ci alaaj Thierno Moule Sow nga xam ne tubaarkàlla saa yu xewlee tubaarkàlla mu bàyyi li mu doon def lépp tubaarkàlla daal di daw ñëw defe naa ne kenn jiituwu ko fi moo ngi fi ñu daal koy dëgtal micro rek tubaarkàlla daal di xool li nga xamante ne tubaarkàlla mooy añ bi mule mule yi daf ma ànd ak sama caméraman waaye yegg si naa fi nga xam ne waañu mule mule waaye fekk naa fi koo xam ne it mën naa ne tubaarkàlla koo àndal woon nga ko sa ngor Momadou Sow waaye bëgg nga alaaj Cerno Moulay Sow tubaarkàlla bëgg goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem maa bu ginnaaw bañ la nuyoo dañ lay bàyyi nga nuyoo waaye présenté li nga xamante ne tubaarkàlla mooy añ bi jërëjëfati ala Thierno Moulel Sow auzu billahi mina shaytaani rajim wala xawla wala xoota illaa billal azim jërëjëfati ala Thierno Moulel Sow jërëjëfati ala Thierno Moulel Sow jërëjëfati ala Thierno Moulel Sow dama ne yàpp benn cafka rek la am jox na ko ñeex ala Thierno Moulel Sow yat ba fu mu daan dal dóorati na fa alaaj Cerno Mulal Sow jàmbaaru Seydina Muhammad bi alaaj Cerno Mulal Sow ci yar gi ci teggin gi ci làmboo jëkkoy Seydina Muhammad et eh, c'est le roi médecine traditionnelle du monde entier muy ku baax ne am jom ne ko am fu la am fayda et eh, alaaj Cerno Sow du ànd ak tubarkalla ak como mi ngi tournée international ma nga diaspora tubarkalla waana la kan moo aye kan moo xewle doomi ndeyam xaritam muy kan Ibou Seyni Thiaw Laay la nga xam ni fa tabaarakallaahu war ko yóbbul ay teraanga la nekk nit koo xam ni kenn la ci moom te nag bi ma waxtaanee moom dana ma carrément alaaj corno danaan aar fii ndax jinne yi la kon alaaj Cerno tey bu demee tournée tubarkalla ñu def nag teraanga gii ak suñu jigéen yu tedd yi tubarkalla Matar ngay kenn koo xam tubarkalla ci alaaj Cerno mu lal sow barki démb ba ñuy wax dama ko ne xorom si ah Matar a ko yor nag mu ne ma ah yéen ñaar ma ne ko ne xorom si Matar a ko yor ndax nit nag ah du iñaan nit du soxor nit lu nit am dog ko yéene ñu nekk nag ak sunu gars yi ñun ñëpp tabarkalla ma ràññee ci kenn ki nga xam te ne ndeysaan muy yuusu mu leen mi nga xam ne mooy borom ah, Tanger borom Maroc tabarkalla baax waane nag li ma jaaxal mooy ajaratu Mariama kamara lii daal man moom moom laa ko jox ndax Camara la sant. Camara la sant xam naa ne aayu ci waane Camara la sant Camara la sant ak nag ñi sant jaa alaaji suufi Dia sant dunu ko neexal ñun soow leen sant ah. jox nañ ko daal ñu sant ma ñu sant Camara jox na leen ko ñu sant Dia jox na leen ko ñu sant lii jox na leen ko ñu sant Sarr jox na leen ko rawatina nag ñu sant Sall xam naa dinañ ma tont nag léegi léegi nag kon euh, sëñ Matar dañuy ñaan yàlla nañu yàlla barkeel te doolu sutura journée ba mu nekk wallaay ma nga fay dimbali nit ñi mi ngi leen fay dimbali ci njëkk ci teraanga. kenn mënu ko fay alaaj Cerno Moulel Sow baax na yaatu na tubarkal la am na jàmm am na salaam am na sutura waane Matar lii mbaa jàmm la lii lan la Matar lii lan la ah nga ne nga jinne moo tax ñu koy wax waa parce que kii moo ñëw baax gën riche fas yéene teral xaritam nee na man sama xarit Ibou Seyni Thiaw laay lu mu def maa nga ca ndax dafa maa bëgg guddi ak bëccëg la ñu ànd rek buñ xëyee ki nekk guddi buñ kiyee kii nekk bëccëg kon xam nga loolu neex na waa mu ne nag comme sama xarit moo xewle ma ne damay bende sama kër samay taalibe teew ñu ànd def convoi fekk Ibou Seyni Thiaw laay ci sama kàddu ci sama ndigal ci sama teewaay xanaa du kon kii moo baax gën riche moo teew kenn du yow Seydi Sow la général kenn du moom. waaw di wax alhamdulilah rabbil alamin rek. di santaat bu baax a baax di santaat sang bu tedd bi macha allah mu Moule saw di wax ni rek macha allah mook euh, doomu ndeyam bu seeni ceew laay macha allah ah nee naa àjjuma gaaw la rek bés doxul seen diggante macha allah ku gis lii mu def ne taalibe yi ñëw leen añ ba suur naan lu sedd macha allah daal ne acca bu ngoon jotee nag ànd leen yéen ñëpp dem fekkee ji ko macha allah kon sant yàlla weesuwu ko fu ñu toll rek dañuy wax jërëjëfe Thierno Moule Sow ndax lu baax rek la ñuy wan moom la ñu jàngal te moom rek lay jëfee ak ñun saa su ne. woo say taalib ba ñu ne leen añ leen ba rek dem fekk sama nawle macha allah kooku sang bu tedd bi rek a koy def macha allah kon nag dañuy santaat bu baax rek di wax ni rek macha allah macha allah xol seddati na daal ah madame Babou nag moo ne woon ci waa ñu ànd ak Marème Sall macha allah. Mhm. kon ñu bàyyi ko rek moom it mu daal di kii. madame Babou bisimilah. asalaamaaleykum ah, ma daaru lay maa ngi leen nuyu ñëpp macha allah di nuyu sama sëriñ sama wasila sama yaakaar te yaakaar laaj jenn mu ne saw di ko ñaanal yàlla moom ak wér ak wër la gudd fa ak njaboot gi. waaw macha allah sunu sang bi defati na maninam ndax xëy na na jox ñu xaas yu bëri. Mm-hmm. na mu la mu lay kaay leen ma teral leen ma ñëw mu ñëw jox ñu xaas yu bëri macha allah ñu dem marché jënd suñuy ginaar ah, jënd suñuy mm. boisson orne yëpp macha allah ndax yàgg nañu ndax dañoo tamal lii tamalu ñu jën yàpp la ñu tamal ak ganaar moo tax it de ñu ngi koy ñaanal di Sow mu yàgg fi loolu te wér mu dem si jàmm ñëw ak jàmm mula mula yëpp kontaan na ñëpp a ngi nii waa ak Marème Faye Sall ñëpp ñu ñu defar ba mu baax daal macha allah kon nag euh, ñu bàyyi. ah Marème Faye ñu jox la ñu jox la kàddu rek. ñu commencé nañ si bisimilah rahmaani rahim pare ci alhamdulilah rabi alamin ñu ngi sant suñu sëriñ suñu wasila suñu xalifa. suñu wéeruwaay suñu yaakaar ginnaaw yàlla ak yonent bi allah ceerno mu lay saw borom kun fayakun borom baatu baatin bi ñàkk ànd ak moom daar erreur la macha allah see di saw di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér ak wérle di ko naan di ko wax ni lii du du du tey rek si ñun lii chaque jour la programme bu am dañuy defar ba mu baax mu génnee xaalis bu bari jox ñu su ñu demee marché lu ñu bëgg lu ñu bëgg lu ñuy def rek dañ koy xeeb lu ñu def dañ koy xeeb macha allah Seydi saw di ko ñaanal gudd fan ak wér ak wérle di ko wax ne rek yàlla ko fi yàlla bàyyi suñu kanam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di nuyu kilifa kër gi alaaji Thierno Moulay Sow xalif général bi di ko ñaanal jàmm yàlla na ko suñu borom defal jàmm yàlla na yàlla aar sàmm ko ah, di nuyu prince Rahman ak Rahim ak madame Sow seen yaay di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di nuyu suñu goroy soxna ummi ak Sofi ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax ah, di ñaanal suñu yaay Adja Mariama Camara yàlla sunu borom bàyyi ko fi ba si kanama a te di ñaanal sunu maam Aliou Sow nag yàlla na yàlla yokk leeram taak si barka Daaru Laay famille lii yëpp moom la macha allah waa di sant sëriñ bi rek di ko sant bu baax a baax sëriñ bi moom lii moom duna gulet ci moom événement bu ñëw day gën ay moyen am génn ay millions teg ci taal bi pour taalibe yi pour ñu mën a berne gan yi maanaam lii nekkul nekkul nekkul gulet macha allah si kër gi lii moom chaque jour moom ay taalibeem moom day sóor ay taalibeem sëñ bi moom saay ne tey xool ay taalibeem ndax ñu ngi lekk ñu ngi naan maanaam ku ko bëgg a jàppale rek nanga jàppal si ay taalibeem maanaam ñuy lekk di naan ba suur xappi firi moom loolu lay dund di koy ñaanal jàmm ak tawféex te bis bii tam gis nga ko xaritam euh, at mu jot da def macha allah te lii daaw defoon na ko te daaw émission ni laay xam nga xaritam la koo xam ne du ko tànqamlu si leen Ah, maanaam ay gudd leen xat rek événement bu mu am day oo da macha allah kon boog tey bu xewlee nag tey moom nekku fi mu ne taalibe yi kon yéen fi nekk rek na ngeen def délégation pour dem macha allah pour dem ci maanaam si si si journée bi di koy ñaanal jàmm ak tawféex di ñaanal sëriñ bi bu baax a baax ne ko ah daaw da ba ñuy dem ma manax moom àndoon nañ macha allah ba ñu demee ba ànd ñu ziare mu am nu mu fa demee woon ah mu nii ren fekk ko fi sax. sëñ bi yëpp ay ay ay misaal la daal ay misaal la ay mbir la rek boo gisee mbiram lépp ay ay ay ay ay yeete la pour jàngale di ko ñaanal jàmm ak tawféex di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla aar ko sàmm ko mu ñibbi si waat si jàmm fekk fi taalibe ñu ngi kontaan bu baax a baax Serigne Sow jërëjëf ñu ngi jox bisimilah. asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa kër Daaru Laay kër yàlla kër yoneen sala salaam kër mu lay saw di di juma këru diine këru lislaam këru yokkute këru bëggante këru soppante ñu ànd ak ndigal yonente bi ak yàlla suñu borom ndigal Thierno Moule Sow maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu suñu sëriñ suñu kalifa di ko nuyu di ko jox wàcc waayam di ko ñaanal jàmm di nuyu prince un prince deux la reine suñu yaay ak gorom yëpp ak njëkkam yëpp macha allah maa leen nuyu di leen jox seen wàcc waay di leen ñaanal jàmm di am mbégte gu bari suñu sëriñ macha allah mu defal ñu berñe bu toll nii ñu mu leen mu leen ñëpp ñu tase fii macha allah xéewalu ngir yàlla ak yonente bi ñu dem tamit ci yónneen bi nga xam ni moom la ñu sant pour ñun ñëpp ñu ànd ànd ci sunu mbokk taale boobu koo xam ni mook sunu sëriñ macha allah dara mu leen tàggale ci kaw suuf macha allah ñu ànd dem ci xewam boobu noonu ñun ñëpp ñu ànd dem ngir yàlla yonent bi ñu dem teewale sunu sëriñ ki li nga xam ni moom nekku fi ñun ñoo nga fi mu wax ñu ñu teewal leen ma foofu noonu mu jox ñu enveloppe bu duuf bu riis macha allah pour ñu yóbbul ko macha allah li nga xam ni moom la war a jot macha ndax moom du fi nekkoon moom moo koy yóbbaaleel boppam mais dañoo wax ne comme que nekkuma fi yéen mule mule yi yéen laa taamu yéen laa xam yéenee sama famille yéenee samay mbokk yéenee sama lépp yóbbul leen ma ko du ngeen ay gi ngeen nuyul ma ko nuyul ma famille bi yëpp ñun tamit ñu am kontante gu bari ñu tase fi ñun ñëpp ñu jóge fi tamit ci bismillahi rahmaani rahim ñu dem ci alhamdulillahi rabbi alamin ñu wàññeekuwaat tamit ñu wàññeekuwaat tamit alhamdulilah rabbi alamin ñu dem ci ndigalu sunu sëriñ sunu xalifa macha allah borom kun fa yakun borom bëtu allahu bi borom xolu jamaa bi yal na ko yàlla fay xorom macha allah macha ndax fa mu nekk ci bitim réew France mokk na rumbax waaw toj na France ba mu toj macha allah toj na ko ba mu toj macha allah jóge fa dem Suisse. macha allah dem toji foofu nu te dina ko toj ba mu toj nag bal ma ñëw fii nag dina roñ seen jinne nekk yëpp indi leen fii macha allah kontaan nañ ci bu baax a baax yal na ko yàlla fay xolom macha allah macha allah macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu sama sëriñ sama wasila alhaji Thierno lay Sow maa ngi koy nuyu di ko di ko jox wàcc waayam di ko ñaanal jàmm ak wér yaram ak gudd fan lool macha allah tey dañoo teew fii pour. réunir pour dem seeti xaritam Ibou Sine lay kook di xaritam xaritam bu baax kay amul ma tuddati encore Ibou laay macha allah dem foofu yóbbu enveloppe bi nee na avant ñuy dem nan ñëw fii teew fii daje fii def bernde bu baax woo woo taalibe yi fas yéene def regroupement dem foofu seeti ko macha allah ok jërëjëf. ah jërëjëf loolu day réeti na. di ci nuy rek sunu papa ji góor gi jaw tubarkal góor gi ma jaw ndeysaan di ko ci nuyu di nuyu sama sunu yaay Adja Khady Mbuub tubarkal la nee na ka jaa tubarkal la ñu ngi ko ci nuyu bu baax ah ak suma yaay tubarkal la eh, ajar ndey Cheikh c'est ko koy bàjjan gi tubarkal la eh, ndey Cheikh seen yaay ji nekk national waaye mama Tunkara mama Tunkara ak mama Adama ñoom ñëpp tubarkal la yàlla na nu yàlla lafal cat te doolu ñu sutura xewal ak mbooloom julit yàlla na doolu sutura xam nga ajaratu ndey Cheikh moom ku ne xam na ni bàjjanu rahman ak rahim kooku moom il est l'espèce il est le spécial yal na yàlla barkal di nuyu nag ay doyen Aziz ñoom ñëpp tubarkalla ñu ngi leen di nuyu waana Matar nga nekk nit ku baax ak oustaz Babacar ñoom ñëpp tubarkalla nga nekk nit ku baax ku am jàmm ku bëgg nag alaaj Thierno na nu yàlla doolu sutura yal na nu yàlla lafal cat te dooluñ sutura ak mboolum ko de lii daal acca bismillah lii kat moo waral lii lat moo waral lii kat moo waral lii kan moo ko may lii la looloo ko may lii looloo ko jox lii Seydi jërëjëf comme guddi na tubarkalla ñu waajal rek tubarkalla ma jox Matar fa tabaarakallaahu nga daal di tëj tubarkalla waane Matar xool sedd tuna guy xool dolleti na sedd ndax alaaj Thierno Moulel Sow ca fee mu nekk ca diaspora tubarkalla mu nga fa nekk di dimbali nit ñi mënuñu koo fay ma nga fa nekk di leen dimbali te yàlla tax tubarkalla alaaji Thierno ah tournée internationale bi ñu ngi koy xaaraat tubarkalla Matar wax naa ko ko de groupe bi dañoo war dem de groupe am na ko mën na ko la yaram may na ko ko tegginam may na ko ko alaaji Cerno passeport am du taxawaalu fenn passeport international la yor alaaji na kenn gis passeport am di ah di yox yoxi man da xam nga ñan laa ñëwee kay kase passeport ba am na ndam kay jàkkaarloog passeport am di ko kase tubaab boobu raw na raw na rawaale na ay moromam kon alaaji na jërëjëf yal na yàlla barkeel jërëjëf Matar bisimilah. jërëjëf Maabo waaye jërëjëfati alaaj Cerno Mulay Sow jërëjëfati alaaj Cerno Mulay Sow tubaarkàlla dégg naa woykat ba di woy naan ko ba ngay door dañ ne woon du sore waaye defe naa ne lu ne fàng kenn dootu ko jeex ndax ne tubaar tubaarkàlla ba nga ne cëpp fële ca Cambérène ñu naan du dem 19 di moins ñu naan du dem nga ñëw Cambérène ñu naan du dem nga wone fa loo xam ne àdduna kenn mësutu koo wone ba tey jii nga ñëw sanc fii ndax jinne yi waxoon nañ kër gi yàgg na ne ko pied dans dana yegg si defe naa ne yegg si na waaye nag nga làngook doomi soxna di Ibou Seny Thiawlaay ku ko xam xam ko ci dégg naxu waaye ku ko xam xam ko ci dégg tasawuf waaye ku ko xamit xam ko ci alquranul karim waaye ku ko xamit xam ko ci xam-xam bu yaatu boo xam ne fu mu waxtaane rek nga defe ne foofu la bokk kooku nag tubaarkàlla di sa xarit waaye di sa doomu ndey waaye nag tubaar tubaarkàlla montre yu baax yëpp ñoo bokk heure ne leen ma dëgg la looloo waral yéen ñaar ngeen làngoo bokk ndey ak baay ànd àndub nawle waaye ànd àndub diineb lislaam waaye ànd ngir jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax defe naa ne nëgëni si daaw yónni nga ñu fa tubaarkàlla ñu yàpp ceeb diwlin ak lépp loo xamante ne luy neexal ak togg la tubaarkàlla ñu yàpp ko ci oto yi jiitle dem ca këram ga wëlbatikooti bisam ba ñu teew fa nëga ni sii daaw la géej gi màbb tubaar tubaarkàlla àdduna di ko waxtaane ba tey te loolee tubaar tubaarkàlla defe naa ne mi ngi ci vidéo yi àdduna yëpp di ko gis tubaar tubaarkàlla nga wone fa miracle ca taatu tefes ga defe naa ne bis baa ngi nii di doog a dellu siwaat ñu war faa dellu ngoon war a ànd ak jëwrin yi ajaratu xadi ba jëwrin ajaratu xadi mbub ak mule mule yëpp ndax bu ma limee ñaar ñooñu jëwrin galaay sëy wax naa mule mule yëpp tubaarkàlla li nga yor nag sunu borom moo la ko jox li nga yor saw yaa ko moom tubaar tubaarkàlla nu la neex ngay ngay ngay ngay tibbee walax njaan ci biir géej nu ko neex lay yëngoo ndax defe naa ne fi mu ne nii ñi doon weddeek ñi doon piit piital ñëpp nee nañ xaj di xool ndax li nga wane leer na nañ yaa nga ca biir Paris tubaarkàll di jàpp jinne yi di leen tuubal di leen dugal ci diine islam waaye ña nga xam ne tubaarkàll dañoo amoon ay yàqu-yàqu biir Europe tubaarkàll ñoom ñëpp dimbali nga leen chaque jour que Dieu fait comme ni nga ko waxee ci vidéo yi ànduma ak professionnel buy caméra waaye yaa ngi jëf muy feeñ àdduna yëpp di ko gis lu ne fàng du ko kenn du ko jeex waaye nit ku ñuul tubaar tubaarkàll daa baaxoowul sant ndax lii bu doon tubaab ko def wala naar il lañ koy faye mbaa ñu samp ko ci poto di ko wone waaye saw lépp fi la ñu fekk ndax yonent bi ay mbokkam ñoo ko doon sànni ay xeer di ko baraawoo mu jóge Màkka jëm Medina ñu baax yooyu way giléem ga dafa rus keroog ba dafa ràmm loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko def te mooy sa dono mooy sa turandoo mooy sa wasila moom nga yaakaar kon nag dañuy daal di gàttal rek ndax defe naa ne naan wuy yokk mar la ndax alaa Cerno mu lay sow su may wax ci moom duma doyal waaye jëwrin jëwriñ ba tubaar tubaarkàlla bu leen fàtte ne embouteillage bi la waaye xam ngeen ne mi ngi ci yoon wi ndax defe naa ne léegi nii rek mu ngi woote tubaarkàlla ndax euh, laayeen bi bu jotee féppay xat kon nag ñu daal di jébbal mi euh, li nga xamante ne mooy xéwal gi mule mule yi rek ndax ñoom dañoo tàmm manger boire kàll ginaar miin nañ ko xam nañ ko ginaar tubaarkàlla du suqi saaf sàqami seeñu rek tubaar tubaarkàlla waaye pièces yëpp mën naa leen koo limal ndax mule mule yi noonu lañ koy defee ngeen gis teraanga yi nii tubaarkàlla lépp a ngi fi lépp macha allahu ala nu mu lay sow di wane ay preuve am ba tey maa ngi nii nag langook sama doomu ndey waaye langoo ak ki nga xamante ne tubaarkàlla mooy maaboo ku ko xam-xam ko ci xol bu rafet waaye ku ko xam xam ko ci wax wax lu baax kii amul sens interdit foo laal tubaarkàlla xaritam a nga fa Ibou Séni nag di mbokkam daa ak moom nag tubaarkàlla moo tax bis bi bi mu nee ma carte téléphone rek sëñ bi ne ma ah Maba de dana ñëw démb la ma ko wax defe naa ne kenn jiituwu ko fi kon Maba yow it gàcce ngalaama ndax ànd ba ànd jeex ànd a gor moo ci ëpp solo ndax gor bu jàppee du bàyyi gor boo ko jànnee du bàyyi gor boo ko toroxalee du bàyyi kooku mooy gor ndax xol bi la mu miin rek lay def la xol ba miinut du ko def defe naa ne bëgg yëg moo koy fay te sëriñ bi tubaar tubaarkàlla yëg nañu faale nañu ba lu muy def jiital ñu ci kon nag ñu ngi jaajëfal ñëpp defe naa ne Moussa Camara ngi nii di doog a ñëw moom tamit Moussa Diédhiou di moyes Camara Camara yee tax <laughs> waaw Moussa Diédhiou ngi noonu di doog a ñëw moom it di mule mule bu mag bokk ci euh, kër sëriñ bi di taalibe moom it ngeen gis ko mu tuddee la la kala doomam jooju nga xamante ne moom la am bërki demboo njaay ñu dem ca muy ngénte lu neex mu defal ñu ay teraanga yu baax a baax a baax ànd ak mule mule defe naa ne dama koy jox rek moom it mu daal di nuyoo rek ñu doog a mën a séddale yëf yi ndax defe naa lii mule mule yi def damay daal di bañ ah joxe nga kàddu gi waaw gis nga ko noonu nee na moom mi ngi sant rek jërëjëfati alaaj ceenu mule sow doy na ko nee na tubaarkàlla ngeen gis nii xéwal gi man nag damaa defe ne woon lii kus-kus la waaye maa ba yow yaa ma tane de ndeke lii ceeb la kii dañ koo kii safron la wala lal li ah. lii lii lii no lii ceeb bu zone moom waaw c'est le ceeb de dernière génération lii c'est le ceeb de dernière génération de alaaji Cerno Mulel Sow ah, ah nee na ka jaañoo na de nee na na de nee na ka jaañoo na de jéeri koli wàq ma ci bu ñëw na de jéeri koli surtout maa ba joxu baa bi ñëw na de jëri koli wax ma ci somb ñëw na tubarkalla ah jëlal leen ma nee na Kaja jëlal leen ma nee na Kaja jël leen jëlal leen ma nee na Kaja tubarkalla wallaay bu alaaji Cerno Mulal Sow tubarkalla ak a baax Matar loo wax ci kii ñëw waaw li mu def dafa sama yaram dafa daw ndax li tax sama yaram daw damaa gis mu yëkkati benn loxo bi kennal sunu borom gi waaye yëkkati beneen loxo bi dollee kennal sunu borom nga xam ne muy siñu alaaj mu Mulal Sow bi nga xam ne fépp fu mu dem moom lay yóbbaale waaye gis ngeen teraanga yi lii ko naajeel ah. gis ngeen ko nii fu mu jëm lu mu romb tubaar tubaarkàlla da koy bëgg a yóbbu ne alaaj Cerno Moulay Sow tubaarkàlla laa koy yóbbul ngeen gis ko noonu muy jëwrin ajaratu xadi ba di doomu ndeyu jëwrin ajaratu xadi mbuub tubaarkàlla nga xam ne ñoom it gaawoog la bis doxul seen diggante ma bëgg ngeen may ko noonu tuuti rek fàllu bu ko defee mu daal di ñëw tubaarkàlla jëwrin ajaratu xadi baa ngi noonu yegg si ak ay tubaar tubaarkàlla nga xam ne bis bi teel na koo waajal moom it defe ko ni nga xamante ne sëriñ bi noonu la ko bëggee tubaarkàlla mu teel koo waajal daal di soññ ñëpp doxe ni nga xamante ne tubaar kàlla noonu la jëwrin di doxe waaye defe naa ne bu fi teewee teewal na ki nga xam ne mooy jëwrin ajaratu xadi mbuub moom it ndax ñoom ñaar gaawoog dibéer la tubaar kàlla jëwrin ñu ngi lay nuyu di la sargal di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax ah di wax ne nag tubaar kàlla kàddu gu yaa ko amee dañ doon tàmbali rek tubaar kàlla ndax sëriñ bi kum ne yawa yawa kum ne du yow du yow waaye kum ne yawa yawa te sëriñ bee ne la yawa ma fii mu nekk kenn koo xamante ni. mu nekk kenn koo xamante ni. ku am jàmm. ku am solo ci sëriñ bi la ku fonk sëriñ bi koo xamante ni amul complexe taxaw wax li ko sëriñ bi defal sëriñ bi kuy ànd ak moom tubar la te avancé woo seetaatal sa bopp Moussa dégg nga li ma wax kuy ànd ak moom te avancé woo na nga seetaat sa bopp nee na Kaja yal na yàlla barkeel te doolu sutura xewal yal na yàlla lafal cat man chaque fois bu ñu waxee man ca xaal pulaar bi laay dugg nee na Kaja wax. ndax waaw nee na kajaa laay wax ndax xadija ngeen wax ñun Haalpulaar dañuy wax nee na kajaa kon nee na kajaa nga xam ni kenn nga tubarkalla ci sëriñ bi baax ba pare tubarkalla muy dem nag ci wëllëreem muy kan Ibou Seyni mi nga xam ne tubarkalla dama bokk ak moom ndax samay mbokk ñoom Mame Matar ñoom Labba ñoom Mbaye Ndoye tubarkalla ñoom Oumou Diop tubarkalla ah sama bàjjan Mati tubarkalla di di di yaayam di léppam tubarkalla ñu tuddee ko nag man it sama maam Ibou Seyni kon yow nee na kajaa boo ñëwee dañuy jël kàddu jox la waa na lii laay laay la la sañ see nga place am yaay xaritu borom diaspora alaj ceen mu lal saw eh bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah sama mbokku taalibe yi maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaar bu baax a baax jiital ci nuyoo bi rek suñu xalifa suñu waseel allah Thierno Moule Sow maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di ko ñaanal tawféex ak siir di yeesal sama njébal di yeesal sama taalibe macha allah di feddali sama kóllëre sama digganteex moom yàlla moo ñu boole ma feebar mu faj ma macha allah loolu bés mu nekk dama koy wax te du ma jóg di ko wax macha allah donc may sant yàlla tey euh, ci bës bi macha allah muy bésu appel bi xaritam Ousseynou doomu ndeyam Ousseynou Seyni laay invité ko macha allah appel bi ci cérémonie officielle bi macha allah mu doon lu rafet ah, yàlla def nag euh, suñu xalifa nekk fi mais nag ñun taalibe yi nag mu ne nañ ko teewal donc mu war a nekk délégation bu am solo bu war a dem jóge fii dem dem foofu ci doomu ndeyam boobu macha allah ma koy rafet lu baax di rafet lu tam suñu xalifa lu mu def macha allah ndax démb bi ñu waxante ci kii bi mu ma naan dama leen di toggal añ waaw ndax comme saa ngeen dem añ foofu ndax moom berndeel la tàmm ndeysaan mu ne il faut mu berndeel leen ah man kontaan ci lool moo ko taalibe yi macha allah man mooy may ñëw man gannaaw sama sëriñ day benn man tam naa yokk rek ci benn bi fruit yi macha allah benn bi gën a neex macha allah voilà man naa ci yokk ci fruit bi macha allah. donc may rafet lu bés bu baax di kontaan ci yéen bu baax Matar maa ngi kontaan ci yow bu baax ci présentation Matar di kontaan tamit ci Sow maa ngi kontaan bu baax ci présentation Modou Sow kontaan naa trop macha allah di rafetlu lépp rek fekk fi sama mbokk taalibe yi macha allah Adja Aminata Diadiou madame Babou Ramatoulaye Dieye macha allah Khadijatou Dieng Fat Diop Moule macha allah Aïssatou Seydi sama xarit macha allah Assou Gueye macha allah sama sœur macha allah ah. ma ma ma Marème Faye Sall macha allah fekk fi na ñoom Pa Moussa Diédiou Ablaye Diaw ñoom ñëpp macha allah. gi amaat galo yéen ñëpp daal macha allah di sant bu baax a baax di kontaan bu baax a baax ci bés bi rafet na ba pare di ñaan rek yàlla ko yàlla mottali waaw ñu yegg fa bis bisimilahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabbil alamin ci barke yonent bi ci barke ñetti leeru suñu xalifa macha allah di kontaan ci ñëpp di sant Youssou maa ngi leen nuyu baax di la ziar di nuyuwaale waa international suñu mbokk yooyu nekk foofu ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar ñoom Dikel Sow ñoom Dikel Sow ñoom tonton Sow Fama Sow ñaama soirée macha allah Adama taalibe Cheikh taalibe yi macha allah faa euh, Fabakary Sonko ñoom ñëpp rek ñu leen nuyu di leen ziar bu baax di kontaan ci ñoom ndax gis nañu ni ñuy teeroo suñu sëriñ ni ñu koy tagalee ni ñu koy sagalee macha allah kontaan nañ ñoom trop trop jërë ngeen jëf di sant di gërëm jërë ngeen di jégul nag tàgg dama gëlëm dama gëlëm carrément bi ma ñëw yoof laa teere yàlla xam na ko yoof laa teere dama gëlëm chauffeur bi gëlëm waaw kon ñu dugal soxna si jaaju moom tamit mu sànni ci ay kàddu rek tubarkàlla bisimilah ndax alaaj coono mu la sow géej la tubarkàlla bisimilah billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim wala xawla wala xota illa billahi aliyu azim ñoo ngi nuyoo di sant bu wér a wér di sant yàlla di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa di sant suñu sëriñ suñu xalifa laaj Cerno Mulay Saw Seydi Saw yal na fi yàgg te Saw yal na fi yàgg te wér Seydi Saw yal na fi yàgg te wér macha allah macha allah kenn du moom kenn du moom rëcc wuñ ni ko doon xame di sant yàlla rek di sant waa Darou Laye macha allah kenn du ñoom waa Darou Laye na yàlla fay leen waa Darou international gis nañ seen taxawaay ak sëriñ bi yal na yàlla fayal ñu leen macha allah macha allah dañ ñëwoon rek ci bés bi suñu sëriñ bu wootee moom man dama génnoon sax damaa yegg dama ne foog ma egsi dama ne foog ma egsi sama portable fay mënuma jot ajaaxadi ma ne naa daw si ñëw suñu sëriñ bu wootee foog ñu ñëw macha allah Alaaj Ceerno Mulay Saw ndax Ibou Laye moom léppam la tan tan xam lu ko ci lenn tan xamul lu suñu xalif bi ci dara ma dégg Adja Xadi ba naan suñu sëñ di nee na dafay def ay añ day def ay berne pour taalibe yi ma ne Alaaj Ceerno kenn du moom moom bi rek la xam balaa muy kontaan rek taalibe yi dajaloo muy joxe ñuy lekk di naan yal nañ ko yàlla fayal yal nañ yàlla mottali ci barki Seydina Muhammad damay soog a egg si moo tax. waaw waaw walaay dalal na la ak jàmm dalal leen bu baax yal na yàlla barkeel te dolli sutura xewal la mu wuti diaspora di dimbali doomu aadama yi yal na ko fa yàlla defal ndam. defalati ko fi sax ndam la wax ndax yàgg naa dem diaspora kon tamit di ci nuyu tamit rek ah, ñoom Fabakary moom nga wax noonu tubarkalla ñoom Arma Virginie tubarkalla ñoom Ramatoulaye Sy ñoom ñëpp tubarkalla ñoom ñaam soirée xam nga ñoom daal yal na leen yàlla dolli sutura ak xewal ak mboolum julit te Matar comme guddi na ah, tubarkal la te ah, alaaj Cerno mooy li ma wax géej la kenn mënu koo jeexal tubarkal la ñu jox la rek nga tëj tubarkal la bisimilah. jërëjëf alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax a baax waaye santaat king of the king le roi médecine traditionnelle du monde mu prouvé ko wone ko moo waral lii tey ngeen gis tubarkal la taalibe yi ni ñu def. waaye ngeen gis jëwri nit tubaarkàlla na mu def ndax gars yi ne nañ ñambaas yàqul sër waaye defe naa ne lii mu def tubaarkàlla wone na ne taalibe nii la war a mel taalibe it nii la war a doxe waaye jëwrinit nit nii la war a doxe hmm. ndax lii mooy jàngale bu leer ñu ko ciy jaajafal di ko ñaanal mu yàgg lool ak sëriñ bi ndax moom it lépp lu rafet ma nga ca waaye lépp lu baax luy defarit ma nga ca mu ngi doxal li nga xamante ne tubaarkàlla moom la ko sëriñ bi sas muy jiite taalibe yi tubaarkàlla moo waral lii kon nag maa boo xam naa ne damay wàccee fii samay kàddu rek ndax defe naa ne dañuy dog a tàmbali rek lii bippe la mule mule yi dañoo bippe waaw wooteegunu ci kanam tuuti ngeen teg foofu seen baaraam sur la TMS TV di jaajëfal it sama caméraman yi ñaawul yi tubaarkàlla waaye ñoom it ñu bëgg ceeb lañ nag ñu bëgg ceeb waaw galaay galaay tamit di ko ci nuyu bu baax borom ci kanam jërë ngeen jëf